c'est renforcer souffrance su Adji Raby parce que yow nit bu la waxee ne yaa ma def lii yoon moo leen di àtte waaye waroo foo toll di organiser di manipuler nit ñi pour que nit ñi gëm ni que yow victime nga ngay profiter du fait que l'essentiel des Sénégalais mënuñu décrypter ton discours ngay manipuler les plus faibles d'esprit ma jox leen benn exemple mooy mbiru passeport diplomatique bi nga xam ne tegati na ko démb pour nax sénégalais yi xamul loolu il faut ñu point yooyu il faut ñu toj ko pour leeral suñu xeex ñun dafa xeex xeex boo xam ne dañ koo ko sanc ci dëgg député sénégalais boo gis am na passeport diplomatique première jabaram day am passeport diplomatique ñaareel bi am passeport de service donc Ousmane sonk li mu leen woon démb daf leen woon passeport diplomatique bi nga xam ni li mu doon député moo tax mu am ko ba tey jii mu ngi nekk député immunité am la ñu yëkkati donc bu passeport am arrivé à expiration yéen ñi toog ci salle bi moom mu ngi nekk député ba léegi donc dañ ko koy renouveler parce que buñ ko ko renouveler wul day nekk violation droit am nest pas donc dañ ko ko renouveler parce que état bi bëggut a def ak moom lenn lu muy mënul salfaañe ay akam ak ay mu ñëw xam na ko mais démb moom ba mu ñëwee démb moom ba mu ñëwee di wax ak yéen da leen gëmloo ni que dañoo nangu passeport simple am daal di ko jox lu gën a lu ëpp dayoo lu gën a am doole muy passeport diplomatique loolu yëpp ay manipulation yi muy def askanu Sénégal bi pour jaxase xelu nit ñi pour mën leen armer préparer leen feesal leen ak mer ak colère ak haine ba bu leen nee génn leen reyante ngeen génn jaay seen bakkan kooku mooy Ousmane Sonko gis ngeen manipulation yooyu base bi mu koy teg passeport diplomatique bi mu leen won mënul tax mu génn Sénégal parce que passeport diplomatique bi du ko immuniser contre le fait dafa nekk sous contrôle judiciaire et bu yeggee frontière au Sénégal dañ koy wàññi xam na ko invité nañ ko Togo conférence bu mu waroon a dem du dégg ngeen ko muy dox dox ñaxt moom ak ay avocat am pour ñu delloo ko passeport am mu mun a tukki dëggalam déet waaye ba mu toogee ak yéen démb comme d'habitude Machiavel avec son esprit machiavélique dafa jël di nax ñi seen xel ñi dul jàpp ak ñi nga xam ni xëy na du ñu gëstu gëm gëmloo leen ni que dañoo jël bi gën a ñàkk euh, passeport bi gën a soof daal di ko jox beneen bu ko ëpp doole loolu yëpp pour dugal seen xel ni que ku dafa am complot Macky Sall ngi dox loo xam ne yéen yëgu leen ko que mu ngi def deal ak Macky Sall loolu benn côté la loolu pour yàq xelu Adji Raby Sarr ak ñi koy jàppale pour ko ñooñu ne ah kon état bi ba moytu mu ngi complot mu ngi deal ak Ousmane ci benn wet bi kon ñoom lu ñuy xeex ni ban sens la am ma ne leen loolu amul loolu ba tey moom la rek manipulation la rek cet esprit diabolique esprit diabolique boobu nga xam ni matin soir day xool muy taalee Sénégal ngeen xam ni que loolu amul loolu manipulation bi mu jubal ci côté Adji Raby Sarr CODAS maanaam ñëpp ñuy jàppale Adji Raby Sarr c'est des millions de personnes